le terrorisme amul ben ou Afrique bu ko mën fajal rek bu États-Unis d'Amérique mën na am euh Nous ne daf ci bolé luma ben ak ñaar pour ñu ko Sénégal seul Mali seul wala seul mën terrorisme donc il faut ñu nous joxante loxo terrorisme nak dañuy ñew def li def ay nit dem seen yoon ñuy xaar ñu defaat ko ñu dem di wut ay pour défendre c'est bien mais dama ci boolee nañu góorgóorlu am doole yoo xam ne ay doomu Afrique yoo xam ne réew mu nekk la jóge ñu boole leen ma nga xam ne dañu am doole pour xeexal ñu bu ñu gars yi songee ñu mën leen songaat ñoom tamit mën defanteeg ñoom comme on dit plutôt que toog rek di xaar gars yi ñëw dal suñu kaw dem ñëwaat ak yooyu. donc beneen point bi ma wax mooy diaspora kenn mënul def dara Afrique bu dee da nga xeeb sa jaspora wala boole woo ci sa diaspora jaspora bi mu am ci xam ak li mu am ci mën-mën. buñ ko boolewul dañuy ñàkkal suñu bopp euh, kii euh, euh, disons dañuy ñàkkal suñu bopp chance parce que dañuy bàyyi loo xam ne buñ ko utiliser woon dina jëriñ Afrique ñu jëmale kanam mooy diaspora africaine may ñaan yàlla nag ñun suñu parti MPCL ñu dem ba nekk premier parti diaspora diaspora bi yëpp gis boppam ci ñun li ñuy wax ak ni ñuy doxalee ñu ñëw ànd ak ñun ñu conquérir Sénégal conquérir suñu réew conquête bi nag ci biir réewum Sénégal lañ koy defee parce que foofu lañ koy commencé mais xam-xamu diaspora bi soxla nañ ko seen mën-mën capacité soxla nañ ko moo tax bu ñu boolee loolu yëpp te man ñëpp xam nañ du Sénégal rek ma ñor Sénégal ñor na ma lool parce que mooy sama réew falaa juddoo mooy sama cosaan mais Afrique defe naa gor ñu góorgóorloo Sénégal dina indi contribution ci naka la ñuy taxawale Afrique ba créer booloowu doomu réewu Afrique yëpp ñu mel ne États-Unis d'Amérique wala États-Unis de de l'Inde wala États-Unis du Brésil ñu mën a am ñun tam suñu wàll ci àdduna bi. benn waaw ah, jërëjëf.